Dakar News 221 abonnez-vous. yow ñaan kat waxoo dëgg. dégg naa sax kenn ku wax ni. Wally Seck na jóg ci boppam parce que dañoo rey papaam rey yaayam. waxul dëgg mais yàlla mi mi mi bindu. Ah, jàmm defi di reyee. man nag nee naa rey gi ba koo ji ñeneen. mais ñooñu nga teg ñoom lañ bëgg. wala déggati nga wax man laa man Mouhamed ku ma déggati nga wax ci bu ma xamee sa tur bu may def interview dinaa ni la diw waxoo dëgg. da ngay wan ne ay nga mais ma laaj la dara mos nga fee gis benn ñaankat bu ñu invité borom xam-xam toog moom benn plateau. duñ ko nangu. alima la ñuy toogal waaw mais loolu la ñuy toogal. duñ ko nangu waxtaan. mais boo amee benn waxtaankat ni Oustaz Mouhamed Mbaye kaay nga wéttali ñu ci plateau bi ñaankat boobu bu xamee ni Mouhamed Mbaye day ñëw du toog kon lu muy jàng bi ci des may alima ñi lay wax ne ay ñaankat la ñëpp kenn mu laax ci ne lay laay seete du la wax pétaw laay seete du suuf laay seete du la wax ci ndox laay seete du la wax ci nangam laay seet du wax ci alcorane lay set te dugg di rek yow te mbiri transit la rek buy dem man may tok ñu la melo mais sama yaaji tan yi dafa tawat way def ci ñaan nga dem ah no gisee ma la ma ci yaakaar dal mais période bi mom febar bi garaaw na nga dem tok kër benn di waxtaan ak mom mu nek ñaan kat nga ne ko ndo oo oh, ndaysan oustad mohammed Mbaye de mooy coupé téléphone ni di waxtaan ak man ni ma mer dafa febar dal nga ni ah no sonu na de Mouhamed de du waxam lu wax deug la tane amatu ñu amatuñ ci mer bi melo 2 jours ngay ñibi rek mu def dugg ci internet bi. oustaz am na ñoo xam ne sax kenn du leen ko nettali. Hmm. maanaam ni ko ñëpp yëgee lan koy yëgee. dugal ci seen grain de sel damay wax damay faral di wax ni c'est-à-dire situation yu mel nii bu amee. Hmm. ñi xam d'accord yàlla nañ pour wax xëy na peut-être. Hmm. mais am na ci ñoo xam ne xamuñu nañu noppi. ci maandu la bokk. am na ay site internet yoo xamante ni bëgg nañu ñëw ci kër gi ñu bari pour intervenir ñi ma woo je le sais dit li ma xam ci jaaga mooy li nit ñëpp doon seede bi ci des mooy bu ma doon jokkoog moom téléphone tabaski lay doon ak korité mu woo ma ne ma sa càmmiñ boole na ma ak yow nee na naa la jox nga jëmi soble mm-hmm. donc su ma fi woowee site internet pour wax leneen leneen lu ma wax dama wax la ma neex ak la ca gannaaw dëgg ma ne site yi mm-hmm. jéggal leen ma ko parce que xaw ma ci dara dëgg la donc loolu ci maanute la bokk am na ñoo xam ne oustaz est-ce que nekkul dañuy profité ci genre yi Dakar News 221 abonnez-vous